Thank you. yàlla may mu ci def faraw ak mer mu xamoo ci yow dafa bopp xam ku tuura mel ni guddi mais ku lay defin nay le jaamu yàlla dañ ko ko soxla te kon mu jox la ñu lool ak ku jànka lii la ne lool ban de ban bu doomu la raay ak ku jànka de tey ma ban de ban bu doomu la ak ku jànka lii la ne lool ban de ban bu doomu la raay ak ku jànka de tey ma ban de ban bu doomu la Bye.

Oh, الله الله الله

Wapaglolen. waaw ngeen may mu ne ngeen may ko tuuti waxtaanu du gudd. dafa bëgg mu nekk waxtaan wu ñuy jëriñ. ndax procès bii ñu tàmbali nañ xam ne gis nga mbedd mi dina yii ñun lay xaar kenn ñu ko defaral gis ngeen ni ndox mi bëree tey gàmmu déwén ci digg nawet lay doon ana ñun lan lañ préparé pour ndox mi déwén wala gàmmo day jot ñu ñëw lekk ceebi doomi bàyyi lekk seen ndawal yi tilimal dëkk bi dem ñibbi ne xam nañ gàmmo dëgg dëgg mu ne buñ nax suñ bopp yëf daal nii rek la wala nii rek ñàkk ko mbala ñukki ñaari képp mooy di dee jël amul naxante de bàyyi mu ne laa bil huwayna wala bi mu dara turi jaan du naxante ñoom du maslaa ak ñoom wala di jéem a xaritu bi yow fexeel daal ba maqaama sëriñ bi xaritoo loolu la koy may mooy jëf ñun ñu wax ci suñuy xalaat ñu doog a dem ci waxtaan wi mooy ne ñun dañoo wax ne ay taalibe bàyyi dem du loolu lañu wax ku ñu wax ne dugal taalibe bàyyi nga mer ku ñu wax ne bëggoo bàyyi nga mer waaye boo seetloo itam ànd biñ ànd ak bàyyi ñun ñoo tànn nu ñoo ànd ak bàyyi waaye nanguwuñ bàyyi tànn moom nu muy ànd ak ñun te fekk nag bàyyi tànn bi muy tànn mi ngi ànd ak moom moo ñu jëriñ moo tax barki démb Cheikh Mouhamadina Ibrahima Niass dafa yónnee ci moom mu ne maham Alaaji Abdoulaye bii nga xam ne daaraw ma Alaaji la mboolem bi fa lañ jàngee bàyyi dëkkalaat ko mu ànd ak jamono tuddee ko bàyyam la ëpp fukki junne xale ñu ngi koy jàng soo leen xaajoon fukki xaaj juróom-ñett yi yëpp duñ koy fay xañ na ñaari xaaj yi fay te ñu koy liggéey dañ leen war a fay mu ne kon muqaddam ñoo war a fayal juróom-ñett yële mu ne jaaw yow ñaata nga ciy jël moo mun a jël na téeméer ak alal léegi nag mu ne ñun tamit kenn ku nekk la mooy jël na ko wax fii mu bind ko fii man jël naa kenn mu ne ku ci bindu ci kanam bàyyi la ñuy jaayante nag xam nga mënoon naa bàyyi bañ dem ca école ba waaye dafay ñëw ba ci kanamam ñu jaayante fii fii moom luñ fi wax yàlla dëggal ko te ku ci joxe ku ci fay yàlla jaar na sa diggante ñàkk te yàlla dana la may borom xam-xam xamul nag xale bu ne ñaata lay fay. waaye bu ñu ko waxee mu ne soixante quinze mille at mu yëpp at mu xale bi soixante quinze mille lay fay bindal Amath Kébé dafay ndànk rek kenn par kenn Assane Diouf juróomi xale Jibi Carlos ñaari xale Ibrahima Diallo Niang Ibrahima Diallo Niang ñu ngi ñëw dafa ndànk rek bàyyi tebe benn Oumou Diouf benn dafa ndànk rek sëriñ bi lay bind mu ngi gaaw ak kan bay Keba Sonko benn Keba Sonko benn Ibrahima Thiam benn. Keba Sonko benn Yacine Carlo ñett. Ibrahima Thiam. maa ngi ñëw. ñi foo Carlo benn. may bàcc moom daan na may bàcc moom benn ñu ko benn yaatu ñëpp ñu bàyyi ñu ko benn. Kébé Kébé. Amadou Diallo benn. aywa Ibrahima Thiam dollar. Ibrahima Thiam dollar. benn. xaaral ma def benn. Astou Sarr benn. Boubacar Diallo benn. Alaaji Babou Ndiaye benn. Astou Sarr benn. Babou Ndiaye benn Baye Niass Kébé ak i Baye Kébé sa kii sa Kaynoor benn. Amath Amath Amath. Mouhamad Diawo Satara ñaar. Yaali Mbow benn. benn. Yaali benn. six. Baba Ndiaye mën nga bind ko six. benn. waaw góor yàlla yàlla doon benn. Alaaji Ibrahima bu mu jegeel. benn benn. danañ mën a juróom bàyyi la ñuy jaayante de. mu ne daayira bu soppi ko yoroo. mu ne benn. Juma Sow benn. tur bi tur bi. waaw. dara lii si ñaata trois bay bay bay bay dara lii si trois dara lii si dara lii si dara lii si alaaju ba mën nañu bind ko six ba alaaju asan dara lii si maanaam fayda ñaar asan dara lii si mbay njaay benn Aliou Diwa Safa daayira Lycée Nioro 3. mu ne daayira Lycée Nioro 3. Banaatu fayda ñaar. daayira Lycée Nioro ñaari nit. ñett. wante bi tam tam mu gën mu ne benn. ak Malick Ba. daayira ci sa teewoon ban. Malick Ba. Manon Ndiaye. benn. Cheikh Ndiaye benn. Manon Ndiaye benn Cheikh Ndiaye Assalamualaikum. Malick Ba Bibi Ndiaye Bibi Ndiaye benn nañ Bibi Ndiaye benn nañ Malick Assane Demba Diaw ci sëriñ ñaar Assane Assane Assane maam Fatou Diallo benn. daayira Saare benn. daayira muy diine bu diine bi saw benn. Ibou Diallo ñu ne la. Ousmane Diop. Daayira Consultant. Baye Mbaye. Baye Mbaye. Baye Mbaye. Fatou Diakha benn. Ousmane Diop benn.

Baye Mbaye Baye Mbaye Cer Cerno ñaa Cerno ñaa ñaar Cerno Baye Mbaye Cerno ñaa ñaar Sigarkan, sigarkan bunga kan. non non lui ça va ah Abdoulaye Diouf benn anam Sergio toujours ngeen dégg ñuy lii mooy ñu bëgg a participer ci jàppale xale yi jàng ci école bi. sëriñ bi daa jël téeméeri xale pour war leen fayal ci école bi. xale bu ne at bi soixante-quinze mille nga war a fay donc. yoon nekk rek. ñaata xale nga mën a fayal. benn mën nekk ni di bind nii ku nekk daal jël engagement ñaata xale. numéro téléphone yi numéro téléphone yi ah. moo gën a wóor. mu leer. sëriñ bi moo a bisaaw. dina li a fayal a fayal. ci Adama xale def na jàmm ak benn mu ne foo nga dëkk benn dara waaw yaa ay dafa ñaaw Amadou Diaw benn ma sóoroon laay. man numéro yi waaw. booyee. ah. Tidiane. numéro téléphone. numéro téléphone. numéro téléphone. benn. di ma benn ak sama numéro. ñu ngi leen neex a. maari mu ne. oustaz si dina yu ñaar. maari. ah. ah. yokku nañ ko yokku nañ ko kàpp. oustaz si dina yi ñu ngi leen ñeent. macha allah waaye dana ko matal incha allah. jël numéro yi. lépp dana demee incha allah. Jibi Diop Ndayane ah ok borom ga loolu yow maa mën ko. dégg nga bi nu yow ma ne joxe naa numéro yi. ku ñëwul ñu woo la. waaw ah, numéro téléphone bi. ku ñëwul ñu woo la. yi. Baye Mat yi. numéro téléphone yi. bind yow mu ne. jërëjëf. waaw man nag waaw man kay xam nga sax su ma ñëw baal quoi maa jokkoo bàyyi man. waaw dinaa ko wax ji bi jóg. waa nit kuy ndaayam dana. waa nit kuy ndaayam dana su lay seen. Mbaara Niass bindoo ñaar iya. grand Kédougou ñaar man Mbaara Niass Farafeñe bindoon nga ko Mbaara Niass Farafeñe. su ma bëree numéro yi nag. waaw. bindu yomb na. Kébé. Oustaz seen numéro bi. Kébé Assane. Mbaara Ben, ben. Farafeñe Mbaara Niass. Ben. Ben. Bibi Carlos. ah benn benn. Bibi Carlos Mbaara Niass. Farafeñe. benn. Jibi Diop naa Amar Amar Jibi Diop naa Jibi Diop naa thank na mo anam mo tax li ma leen wax anam ak ma rek amu ñu mo man kay man anam mo sala ba tan ah kii moo ñëw kii moo ñëw mu ne yaa ko war Asan Ba Kapai Asan Ba Kapai Kapai ah, Sa Ustaz Senek Saluni ne ben? Bak Ustaz Saluni. Yine ben. Ustaz Saluni. Yola. Thank you. la bind. yes yes yes kay di ko nekk yaa ngi ko ba léegi. vraiment ñàkk a دائما فيك بدائي وذكاره والسلام عن خلقي قام وجدي وسفيره وبكائي وحزيني والقران وسماء دائما نسير الامه نعم النسير دائما نسير الامه نعم النسير

wala sëriñ wala man dafa sëriñ haadi naa ba diiru kool ñu ne man dafa sëriñ haadi dan man dafa cheikh nazir dan man dafa cheikh maayi man dafa cheikh maayi ñas dan dan mantakas Sheikh Ahmad una mantakas Sheikh Maila mantakas Sheikh Makiban Ahmad Amat. bayi ko ba ko ngal mantakas Sheikh Makiban Jelagan. Pak, itu jangan kayak dulu bin. Lain masih jitu. Allah jauh. Nggak. منطقة باي نورو بلا باي نورو منطقة باي نورو بلا منطقة من الشيخ نسيب فالا كم يكون وحياتي وقد يوم سوادي ووهمي سوادي أنا فقما ومهيبا ومريبا Dara ñoro Waaw damay kontaan damay kontaan കമ്മൽ കമ്മൽ ഇബ്രഫ പിന്നെ ഇബ്രഫ سيدنا بينا سيدنا اليوم يوم وارم كنتي بمثالي واسلم بطره والملاهي والمقالي كرامي والذي إليك شراب وقراء بالمعاني عين حائل حق حق صالح بصفاته ذات حقا رتبة موسى من nagam. Moussa mu tuddee Moussa woo. Moussa Nange. Nange Nange. sëriñ bi nga xam nañ téeméer ak fukk ak ñett. te moom mu ne fukk mi bokk ci. kon am na téeméer ñaar fukk ak ñett. liñ bëgg nag mooy képp ku ci bindu na nga def ittee nga dem bu jotaay bi pare nga fekk sëriñ bi sàmm jox ko sa numéro téléphone su waxtu boo jotee bu ñu la soxlaa ñi mën laa jot. xanaa loolu leer na. dëgg la loolu leer na nañ. képp bindu na ko fekk sàmm. yokk sa numéro téléphone. Mama Sida Seya Touré Mama Seya yi ngay xare yaay ko mu ñëwoon ba jooy waree loolu war a déglu Touré donc ma ji dox du dara. sëriñ bi nekk na neuf millions deux cent vingt cinq mille. ñun ñoo ko gàddu ci suñu loxo neuf millions deux cent vingt cinq mille. sëriñ bi mu ne bàyyi na nga ko yombalal jàmm ñi nag. Ah, ah, jërëjëf. doomu doomu ji doxatee dara. Mamadou Ba Samar jëlee nga bind ko pour nga bind ko benn. ana Abdoulaye. Lagi sering mulai Dia kasih. Bola pandi, kuangkas Kutubal kucing ni moro asal juga képp ku ko amul bul xeeb li nga am boo amee junni dugalal affaire bi bind boo amee ñaari dugalal boo amee ñetti dugalal ba balaay pare waaye na mat. ah laa akbar. balaa xam ne jeex mu mat. jërëjëf. ndax kat topp topp mooy tooyal ku mën juróomi junni ba tey baax. waaw. bi joxe ko. mu ne 9 millions 350. léegi pour numéro Assane déedéet bu Assane bi mun ko. Assane sa numéro boo ko mënee. jël leen képp ku bind jëlal maa ngi wax numéro Assane Diouf bi. waaw ngeen ko war a 611 611. 19 86. boobu yow ma ji gox bi mbaraan. ko saraan. ndax de ñun ko ñu waraan. dafay dafay lu mag kay lu nga bët bu bee ñu nga colaay ku ne. nga mag war nga gune. kàccoor bi foog ma lay de la. jokk bi yaa bëri sañ laa xamul mosoo ko jar sa ndox mi mos papa du mar te kenn du sax ak tooke laa yaa ko mel ku ci yow dala xamul man de bu dee mën a ma la yow mi xamul xelaat ba dox ba tax xamoo lii buy wolof jongo ma ji duniyaa ko yaa sa waay mu daane gis naa leneen lu ma gënal gis naa ku baax ma fajal man li ma doon ma sa ma nan man du pàcc laa ko koy borom jagleel réew ko ko dundee sunna baray ko koy borom jagleel réew

mu ngi leen di ndokkal moom day ci yéene bi te wóor na ko ne ñun lii ñu dund lii lu ëpp dana dund lii moom xam na ko ndax xol yi day xàttan nañ ko ca poos yi dana ko xàttan ci kanam tuuti da ngeen gis ne ndekk liggéeyal bàyyi ñes lii day jëriñ léegi nag dugg nañ ci buntab xam-xam ci tool yi lañ nekkoon ba léegi ñu ngi ñu jàll ci xam-xam pour lan lépp nag ci ñun lay dellu si lépp loo bëgg a xam te bëggoo koo ñàkk soo ko amee jox ko yàlla soo ko joxee yàlla duutaa ko ñàkk mukk ñu ndey jël nañ suñu wërsëg ñu ne ñu ngi koy dem ci xam-xam ci buntam Cheikh Ibrahim dara ni xam na bàyyi ñu gën a tabe bàyyi day moo ñu gën a baax dem moom moo ne ku ko liggéeyal mu fay la te fàtte du ca topp mukk kon nag ñu ngi wax ne ilal amaam hunakal maraam ñu ngi am ay gan yu mag mooy ñaar ñoo toog ñooy suñ njàttig ci Guinée Bissau ñaari junni nit ñam tugal yëpp ci ñaari nit ñi lañ jaar ñoom ñoo leen andi te ëpp fukki dëkk nangam a toog di ko xaar ñu ngi dugg ci diine ji ci buntam Alaaji Ibrahima kon loolu ñu leen ci ndokkeel bu baax ngeen ñaanal leen yàlla yàlla def leen ay suufi yu ndax Guinée sunu si ñoo fa jëkk dugg financé xaalis da leen nit di loo mbiram sëriñ te ku amul sëriñ saytaane mooy dem sa sëriñ kon ñoom ñu ngi fii ci jotaay bi suñ mbokki Touba ñu ngi fi di ay taalibeem di ay xaritam sëñ Baara Ndiaye bi ñoom xam di wax ci wal fajëri da ci def leral yoo xam ne siggil na mboolee mi doomi daara xaritam la moom la demoon màggali ren naa ñëw waaye taalibe moo jël jabar muy ebal ay taalibeem ñu ñëw bokk ñun guddi gi ba léegi ñu ngi fi toog ku xam kër Baay ak kër Sëñ Tuubaa naka jëkk benn lañ say Seex Mbàkke étage bii daal na fi ay fan xarit bu Baay la boo xam ne moom weccuwut ak dara Baay ak Sëñ Fallu noonu ba léegi doomi bàyyi noonu lañ mel ak loolu nag fan ñu ndax suñuy kan ñooy seeni kan ñu ngi leen ndokkeel bu baax ñu dajale addiya baay dugg ci xabru bi jox ko ilimaan mi Ibu Juuf waxoon ne yaay ndaw luy wuttu mag ñi ba mu koy wax ilimaan a ngi dund baay ngi dund te moom nekkutoon bëgg rek ndeke mag mi tëdd fii laroon wax na ko yaa leen di wut kon nag muy mbir moo xam ne dem bu la woon tey mu fureeku nga xam ne Ibou moomu mu ne dafay bëgg toujours bu ndaje si jotaay bi dafay bëgg fekk wuy Ibou Diouf rek la ñuy wéy moom moo ñu wax lan mooy bàyyi kan mooy bàyyi fan mooy bàyyi ndax nit man na xam ne kii mooy baay waaye du xam lan mooy baay tey du xam ne fan mooy baay parce que bi ñëwee fii ñu ne si baay lañ jëm si mais bokkuñ dem ci benn kër kenn ku ne xam ne kër goo dem te gëm nga ne bàyyi fa gëm nga ne bàyyi ngi tëdd fii kon fan mooy baay ak kan mooy baay. ak lan mooy bàyyi bàyyi moomu nag moo tax ñuy pimpiñu rek luñ def daal pour am ko gis ni ngay yokku mar buñ tuddee yàlla gën a mar suñ waxtaanee ci yàlla gën a mar suñ jàngee alxuraan gën a mar suñ julee ci yonent bi gën a mar kon kañ la ki yuuxu sax mara ko yuuxu loolu waaye du mandi fi kenn ci mandiwul man suuf rek la tax a yóbbu da ngay xaatir be ba te naan yëfi xel nga am pour naanee fa xel ni lott pour dem ba su tër tëb loolu rek la moo tax démb bi waajaale am ku wax bi la seetaan la jëm mu ne ko fii saytaane bi fi daane nit bàyyi mu seex na sir toog ñuy tudd yàlla alquran wa innahum an sam'i la mahsusuun bu ñëwee tuddee alquran tuddee yàlla seytaane daf du fa dégg ñuy tudd yàlla day bàyyi toog seytaane yor ko ba daane fa nit kenn mënta gëm loolu baatu ku ko teg seytaane bu ko yaaree xam ngeen ne bàyyi moo loolu may wax baatu lay lay bu ko teg seytaane boobu yaa reer xam ngeen ne Seexu Tijaan mooy Sidi Barhama oo góor xam ngeen ne Sidi Barhama mooy Seexu kon fële asal bu ko boole man dem damay reer seytaan bi ñëw reer oo Sidi Barhama mosut jëlaw yoon dàggam caaxaan bu leen doxal ba ay bëgg yàlla koy wal mooy arxam. mosut leen di ji ba ay doxee bu leen dayoo ko. indi si di ba am mooy ceeb bi jaan. mosut jëlaw yoon dàggam caaxaan bu leen doxal ba ay. mosut jaan yàlla koy wal mooy arxam. mosut jëlaw liggéey ak lii moom dëgg leen ko njëriñ. maanaam soo dëgg ñëw am mooy arxam. dëgg leen liggéey ak lii moom dëgg leen ko njëriñ. dëgg ko te war a dëgg jaan seen arxam. Turka ti singa ganyo ko jangu Diyo ti barha am ti gai chawo Tado sa meo ganyo yo Turka ti singa ganyo ko jangu Diyo ti barha am ti gai chawo Tado sa meo ganyo barha Hatu ko ko chaka yo Hemai ti zekir go ki yo Buku di dai lai so ni kimbamu Hatu ko ko chaka yo Lai ko barham sare hatu Lato ki yo warna barham Hatu ಊರಾಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಊರಾಗಿದ್ದು ತಹಪಲು ಕೊಂದಿನ ಮರಾಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಊರಾಗಿದ್ದು ತಹಪಲು ಕೊಂದಿನ ಸೇವೋ ಕುಲುಕಿತ್ತು ತಿನ್ಯ ಕೊಂಜಲ್ಲಿ Parama kullalan ke cikin hanyar kulan tantan da kuɗi ban da ke kawo kuyar da ya kai nan ko kuɗi ba. Hold the head on orang mo kau kung amag ka langsung buhilag ko muna baik, mu ne am na kuy laaj. waaw nañ sëriñ bi dafa sonn. nañ laajte addiya bàyyi. tey. mission bi la doon jàllale dem na ci li ci doon dafa sonn Jaajëf jaajëf jaajëf

Mas ele tinha uma sensação do que ele foi, foi. Thank